alhamdulilah mbokk yi ñu ngi tolloon ci yeneen bi alayhi salaatu wasalaam dénkaane ne na ngeen waajal juróom balaa juróom ñëw mu waxoon benn mu ne bi nga nekkee ndaw waajalal balaa ngay màgget waajalal sa bopp jàngal bi nga nekkee xale góorgóorlu ci jaamu yàlla bi nga nekkee xale ndax lépp loo xamul bi nga nekkee mag bi nga nekkee xale soo màggatee doo ko mën waajalal sa bopp bi nga nekkee ndaw ci xam-xam ci jaamu yàlla tàggatul sa bopp ci yar sa bopp ci diine lislaam bi nga nekkee ndaw pour soo màggetee nga tàmm ko garab suñ ko buggee jubanti mbokk yi kañ lañ koy jubanti ndax bu mu màggetee ndax garab bi buñ ko saxee bu mu koy saxalee ba mu am fanweeri at juróom fukki at ci lañ koy jubanti déedéet garab bi kañ lañ koy jubanti bu mu nekkee bu tooy bu ndaw ñu daal di koy samp daal di ut bant bu jub daal di ko ci jubal mu daal di jub daal dem loolu lu muy tekki mooy kon bi nga nekkee ndaw góorgóorlul nga tàggatu balaa ngay màgget ñaareel bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne sixatika qabla saqamik bi nga wéree tàggatul ci jaamu yàlla balaa ngay feebar ñu bari tey ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi ñu ngi tëdd ci kër la ci biir néeg yi ci kër ci kaw lal yi suñu déggee ñu noddu xam nga lan mooy nekk seen problème ak a neexoon ma wér tey ba ma mun a dem jàkk ñu bëri màgget nañ mënatuñu ñëw jàkk ndeysaan lu tax parce que mënatuñ ko dañoo feebar kon bi nga nekkee ndaw tàmmal yoonu jàkka ji parce que jàkka ji mooy mujje lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bis dina ñëw ñu génnee la ci sa biir kër ñu yenu la teg la ci caag jaag bi daal lay indi ba ci kanamu jumaa ji ñu daal la koy teg kon nag tàmmal jàkka ji waaye tey di nga gis xale yu baree bari yoonu foyer yi yoonu stade yi yoonu géej yoonu dex yoonu nangam moom lañ gën a miin ak yoonu jàkk te jullit day tàmm jàkk yàlla wax na ci alquran wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid yàlla nee na seen xar kanam yi na ngeen ko jubal jàkk yàlla nee na xuzu zinatakum inda kulli masjid su ngeen di dem jàkk sax yàlla nee na ngeen sol yére yu rafet bu leen sol yére yu leen neex ngeen yóbbu ko jàkk yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na laa salaata li jaaril masjid illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkk ji te doo dem jàkk yeneen bi nee na soo jullee sa biir kër kenn du ko nangu ñu laaj yaay Aïcha kan mooy jaarul masjid mu ne allazi baynahu wa bayna al masjid arbauna daar ki nga xam ne diggante këram ak jàkk ji ñeen fukki kër la yaay Aïcha nee na kii dafa war a dem jàkk kon yéen sama mbokk ndaw yi maa ngi leen di woo di leen soññ ngeen miin jàkk ngeen miin jàkka ngeen tàmm jàkka ngeen xam jàkk képp ku dëkk ci quartier te imaam xamula yow baaxoo ku dëkk ci jàkk te imaam xamula nga dëkk ci quartier bi fanweeri at ñeen fukki at ñu ñëw ci imaam ñuy laajte ndax xam nga paadiw mu ne xaw ma ko wala imaam dajeeg yow di ko asalaamaaleykum yow fan nga dëkk ci quartier bi kooku baaxul lu tax baaxul mooy bu baaxoon imaam xam ko ndax ñi baax ci koñ bi yëpp imaam daf leen di xam parce que dañuy ñëw jàkka mbokk yi boo dëkkee ci jàkk ñeen fukki at imaam xamu la war nga xoolaat sa bopp jullit war na mooy te ni ku dund ba dee ñu indi la ci kanamu jàkk ji imaam mu ne kii mooy kan kii fu mu dëkk eh loolu musiba la musibe nelaaɗo wi ya heblono joy geɗe joyi haɗe geɗe joyi arde o wi nde selluɗa sihatik ya rew allah haɗe ma ñawde rew allah hade ñaw arde ñaw nani ara ay sa lelima hen sahaji a wonta ummo sa joɗima hen sahaji a meɗata darade ɓanduma so hunde ari hen ñaw te allah subhanahu wa taala hoddirani aɗa sella a wonta daro nden noon nde selluɗa nde andu jama o andu jama julɗo yahat jama julɗo mo yahata jama on o wona julɗo saabu allah wi jeese mon ɗe kuccine ɗum e jamaha mo wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid allah wi husu zinatakum inda kulli masjid hay soɗon yaha jama ƴeewe comci ɗi ɓurɗon yidde ɓornoɗon fayon jama nelaɗo sallllahu alih w sallam wi koɗɗo e sara jama he to o yata jama nelaɗo wi o ala julde o ala julde hay sa juuli nder galle ma a jangi bakara a jangi ala imran a jangi nisa a jangi maida a ala julde parce que ka foɗɗo yaade jama julɗo yaade jama mbokk julit yi yonent bi alayhi salatu wassalam nena waajal leen juróom balaa juróom ñëw mu ne bi nga nekkee ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget bi nga wéree jaamul yàlla ba ngay ngay feebar mu ne xinaaka qabla faqrik bi nga amee bi nga amee jaamul yàlla balaa ngay ñàkk waaw bi nga amee sa alal def ci lislaam wa anfiqu fi sabilillah dugal leen seen alal ci yoonu yàlla benn waay nee na moom dafa jaaxle Sénégal rek la gis jàkk bu ñuy yalwaanal jàkk bu ñuy yalwaanal paa yi toog fii ci biir jàkka ji ak grand yi toog ci biir jàkka ji ak ndaw yi toog ci biir jàkka ji bi ñuy tabax kër yi ban kër lañ yalwaanal fii ci biir Sédhiou ban kër lañ yalwaanal ñu ne fii sabilillah dañuy tabax kër bi damay laajte de ndax fii am na kenn ku ngeen gis gis muy yalwaane mu ne damay tabax sama kër fii kenn ku nekk da ngay xëy rek wàcce ciment wàcce fer wàcce wàcce ñu jekki-jekki rek waaye bu ñuy tabax néegu yàlla nag ñu ne dañuy yalwaan allahu akbar loolu mooy wane ñun suñu bëgg-bëgg yàlla dafa des yow bi ngay tabax sa kër yalwaanoo nga ne da ngay tabax néegu yàlla ngay yalwaan fanweeri jullit fanweeri jullit ñeent fukki jullit juróom fukki jullit ci benn quartier ku nekk bu indi woon benn saaku ciment ku nekk bu indi woon 10 000 bu kii indi woon 15 000 ndax néegu yàlla bi dina gaaw a pare wala du pare waaye boo nee fii sabilillah ñu jox la ñaar dërëm ñaar dërëm ñaata ngay dajale ñaar dërëm balaa ngay am saako ciment yooyu fii sabilillah ñu jox la fukki dërëm fukki dërëm ñaata la ñuy dajale balaa ñuy am saako ciment moo tax da ngay gis jàkka bu ñuy tabax fanweeri at jàkka bi du pare. néegu yàlla kenn waru ko yalwaanal loola tax yenn saa yi da ngay toog nga gis ay financement yu jóge ci dëkku arab yi ñu ñëw fii ñuy tabax jàkk xam nga loolu financement yooyu fu muy jógee yenn saa yi ay borom alal ñoo koy génne mais yenn saa yi ay jigéen yoo xam ne dañ leen a takk jigéen boo xam ne dañ ko may jëkkër ci canam ci canam lay génne xaalis bu bëri 10 millions 15 millions mu ne am dem leen ngeen tabaxal ma jàkk can can tenge ko wiyetoon tenge ko hen saaji yiyon ɗo jama mahaaɗo koye tenge mahira debbo yaltinta e tenge mum wiye jeeye mahane kam hen jama oɗon gandi tenge mahirade jama ɗen on nden gandi dawgal waɗa e barke mbokk yi can bu ñu tabaxee jàkka can boo xam ne dañoo ñëw tabaxe ko jàkka jàkka ji nit ñi ñu ci julli xoolal ñu pare ñu ne ñaanal leen ku tabax jàkka ji bis ajjuma bu nekk suba tisbaar tàkkusaan timis gee ñuy ñaanal ko ñaata at ndax benn at lañ koy def pare bés bu nekk ñi fan julli dañuy dee ñeneen ñëw ñuy ñaanal kooku di ñaanal kooku ngeen defe ne sëy boobu dina am barke wala doo am barke li am barke tey fii bu ñuy tabax bu ñuy tabax foyer bu ñuy tabax foyer foyer fu fu jeunes yi di feccee di foy est-ce que dañuy yalwaan bu ñuy tabax stade bu jeunes yi di footballee ndax dañuy yalwaan kenn du yalwaan de bu ñuy tabax mairie ndax dañuy yalwaan kenn du yalwaan dañuy ñëw rek nga gis ñu commencé di dajj garab yi di dagg lu ñuy def ni ñeneen dañuy def foyer de jeunes ñetti ñetti fan mu pare waaw lu tax bu ñuy tabax jàkka yàlla wa annal masajida liman wa annal masajida liman li imam wa annal masajida lillah yàlla nee na jàkka yi maa ko moom kon lu tax bu ñuy tabax jàkka ñuy yelwaan parce que jullit yi ñoo pareegul jullit yi ñoo pareegul xaalis bi fii lañ ko takk fii ci seen xol bi la nekk boo waxee fii sabilillah tey bu imaam taxawoon bi mu ne maa ngi wax ku nekk buy ñëw buy ñëw aljuma bi di ñëw na indi 1000 francs ñu eggali juma bi ku nekk na indi 1000 francs ñu eggali juma bi léegi gis ñu ne eh ay ay imaam moo muus waaye yow imaam yi mu ne nañ indi 1000 francs waaye yow man du ma indi benn 1000 francs eh suba bu ñu waxoon dañ leen ku nekk ñu indi 1000 francs dañuy dem géej dañuy dem sorti dañuy ànd ak xale yu jigéen ñi ku nekk na indi 5000 mooy paas dañuy jënd ginaar dañuy jënd xar rek ne jaajëf waay eh 10 000 ah eh 10 000 lañ war a indi 5000 dafa tuuti ah mbokk jullit yi foog ñu xoolaat suñu bopp foog ñu gëmaat yàlla gis ngeen Aboubacar Saddiq dafa joxe alalam ba mu jeex tàkk Ousmane Ibn Affan dafa joxe alalam ba yonent bi ne yàlla faaleetul Ousmane lu mu def Ousmane su julliwul sax yàlla da koy yóbbu aljanna ndax alal bu mu joxe loolu la yonent bi wax Ousmane dafa joxe joxe alalam ba lépp jeex ci diine. Aboubacar ñëw joxe yàlla mu ne ko Aboubacar loo bàyyi sa kër mu ne bàyyee naa leen allahu wa rasuluhu bàyyee naa leen yàlla ak yonent Abdourahman ibnu Awf joxe yonent ko Abdourahman gis naa la ngay dugg aljanna ngay raam mu joxe lépp mu ne ko gis naa la ngay dugg aljanna ngay daw yàlla yàlla wax ci aljanna saabiqu ila magfiratin min rabbikum yàlla mu ne njëkkante leen aljanna inna allaha ashtara من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة yàlla nee na àjjana dama koy jaay àjjana yàlla da koy jaay yàlla mayewul aljanna wallahi ku yaakaar ne yàlla da lay may aljanna da ngay tëdd nelaw di noos di def lu neex nga dee dugg àjjana da ngay nax sa bopp àjjana foog nga liggéeyal yàlla foog nga sonn ci yàlla foog nga jaamu yàlla foog nga julli foog nga woor foog nga joxe azar foog nga def yàlla subhanahu wa taala mu xam ne yow gëm nga mu doog laa defal tiyaaba waaye nga tëdd nelaw rek bu fekkoon ne aljanna ku tëdd nelaw kon yonent bi tëdd nelaw am aljanna waaye yonent bi ko yàlla yónnee ba bu muy dugg suuf yonent noppalul Fatima sax da doon wax waa kar ba abata way papa sonn nga waa kar ba abata laa kar ba bi abik baadal yow ginnaaw tey dootuma sonn ginnaaw tey su ma jógee aduna laa raaxata fi dunia du loolu la njàng laa raaxata fi dunia aduna kenn du fi noppalu laqad xalaqna al insana fi kabat yàlla nee dama bind doomu aadama pour mu sonn léegi nag ñun bari bari
bu nu bëggee sonn ci ci ci football football dañuy sonn 90 minutes waa ji sax yenn saa yi ñu bëgg koo remplacer tribune bi yuuxu bàyyi leen ko foofu bàyyi leen ko. ah jaamu yàlla nag ñu ne ñun duñu sonn waa ji bu nekkee ci tool day sonn waaw bu nekkee ci jaamu yàlla mu ne même fii léegi léegi rek julli yi julli yi yenn saa yi imaam yi taxaw rek jàng saar bu gudd saar bu gudd imaam juma rek juma wala kii. jàng saar bu gudd rek su imam pare ñu ne eh an imam min ƴeewima ɗeɗo balɗe an a janggay saaruji juɗɗi e minen komin mawɓe min wawa darade a ustay salsemoje de a ustay so wiyama président de la république ara yaha daroɗa guila subaka ha kiki yiɗi adari banggue goto a wiyata a tampi so pré so allah wiyama eɗen juula imam janggui lam yaku walla isa zulzilat sed so gayni wiyen e imam simoje maɗe no juuti an imam a ustayi sen wiyama joni joni yen rang ɗo eɗen ƴetta enveloppe 10 mille 10 mille guila sabaka ha kekede hay goto tampata mbokk yi bu ñu waxoon léegi nañu rang fii dafa am kuy joxe fii ay 10 mille suba ba ngoon ñun ñëpp dañuy rang kenn du sonn wala waaye cey bu imam taxawee fii mu jàng am ma yata mu jàng wan naa si aati yàlla ñu pare ñu ne eh imam yow da ngaa mun a guddal imam ragalal yàlla dañu dem tool ah allahu akbar yàlla waxoon na ko da ngeen a bëgg adduna bal tusiruuna alxayaata addunia adduna rek ngeen bëgg xanaa xamu leen ne wala al axiratu xayrun wa abqa diine yàlla du falaa falaa diine bi foog ñu dugal ko ci biir xool yi fii foog ñu dugal yàlla fii ñu jël adduna ñu def fii suñu gisul lu ñu xam ñu sànni adduna ñu jàpp ci yàlla waaye léegi bu ñu jëlee yàlla ñu def fii ñu jël aduna ñu def fii su affaire bi diisee ñu sànni yàlla ñu jàpp aduna musiba am na dañ leen defaraat suñu bopp yonent bi nee na beneen ñett ñeenteel bi yonent bi waxoon na bu ngeen nekkee ndaw jaamu leen yàlla balaa ngeen di màgget bu ngeen wéree jaamu leen yàlla balaa ngeen di feebar su ngeen amee jaamu leen yàlla balaa ngeen di ñàkk ñaar moo ci des yonent bi nee na xayaatika qabla mawtik bi ngay dund jaamul yàlla balaa dee ñëw dee moo ngi ñëw de mbokk yi yàlla nee na ayna ma takunu yudrikumul mawt fu ngeen mën a nekk di ngeen dee foo mën a nekk nag yàlla dafa lancé défi bu dee foo mën a nekk aca dawal foo mën a dugg dugal dama nga nëbbatu ci ginnaaw ku la neex dama nga dugg kër gu la neex demal nga nekk foo bëgg foo yaakaar yàlla nee na ayna ma takunu fu ngeen mën a ne mu ne yudrikumul mawt mu ne walaw kuntum fi burujin musayyada walaw kuntum fi burujin musayyada bu ngeen nekkoon ci ay tata ay miiru blindé ay garde corps wër leen yor ay kalachnikov armée de l'air armée de terre armée de mer yàlla nee na bu malakal mawtu ñëwee da ngay dee yaxya daawuda dafa fiiroon daawuda yonent yàlla daawud su génn këram day tëj jabar ji ci biir néeg bi su génnee mu tëj kër gi mu tëj buntu kër gi pour góor du dugg foofu benn bis mu ñëw rek mu fekk benn ponkal toog ci digg kër gi toog ci benn chaise mu ne wow góor sama biir kër kii kala mu ne ko man buntu munumaa téye caabi munumaa téye mu ne kon de kii malakal mawti la waaw man la kay loo fi def mais yow laa jël si mu ne man ne waaw waaw mu ne lu tax waxoo ma ko dox waxoo ma ko woon na yaa ngi ñëw mu ne ana sa papa dee na ana sa yaay dee na ana sa maam mu ne dee na mu ne xamoon nga ne yaa ciy topp allahu akbar xamoon nga ne yow yaa ciy topp ndeysaan gis ngeen dee bu ñëwee amul garab yàlla nee na kullu nafsin zaiqatul mawt kullu man alayha faan gis nga ñaari kullu yooyu bu ñu wàccee malaaka yi dañoo kontaan malaaka yi dañoo nekk kaw asamaan di jubile di yuux ne ñun duñu dee bi yàlla waxee kullu nafsin zaiqatul mawt malaaka yi ne ñun bokkuñ ci nde allah wi kullu nafsin zaiqatul mawt malaykaaji ɗi wi minen min jeyaka heen par ce que minen min wona nafs lasna anfus wa innama nahnu arwahum muqaddasa ñun ay ruulan ñun bokkuñu ci minen komin ruuhuji min maayata allah wi kullu man alayha fan ku dëkk aduna da ngay dee malaaka yi ñu ne ñun bokkuñu ci lasna sukkanul ard wa innama nahnu sukkanu sama ñun dëkkuñu suuf ñun asamaan lañ dëkk xam nga kan la malaaka yi malaaka yi xam ne dañuy dee bi yàlla ne kullu shay'in xaalikun illa wajha bi yàlla waxee lu dul yàlla da ngay dee boobu la malaaka yi daal di sëngëm ndeysaan ñu ne jibril lan la mu ne ndekee damay dee moo tax yowmal xiyaam bu ñëpp deewee ba mu des xamalatul arsh mu des jibril mikail ak malakal mawt yàlla day woo malakal mawt mu ne ko damal nga rey jibril ak xamalatul arsh mikail damal nga rey ko malakal mawtu yuuxu mu ne yàlla jibril day dee mu ne demal nga rey ko jibril sax day dee allahu akbar mu ñëw rey jibril mu rey xamalatul arsh mu rey mikail as après mu daal di ñëw mu ne yàlla ñëpp dee nañ mu ne ku des mu ne man ak yow yàlla mu ne ko sukuraatal malakal mawti sukuraat yàlla wàññi sukuraat bi mu ne ko noo ko gisee mu ne su ma xamoon ni nii la mel bi nga ma ko santee dinaa la ñaan ngànt nga jox ko keneen yàlla mu ne ko deewal mu dee léegi nag bu ñëpp dee kenn moo fi des yàlla jàkkaarloog àdduna mu ne yaa duniya ay na xusuuruki àdduna ana kër yi yaa duniya ay na jibaaluka àdduna ana montagne yi yaa duniya ay na bihaaruka àdduna ana géej yi yaa duniya ay na samaauki yaa duniya ay na al ard ñëpp noppi yàlla mu ne aynal jabaabira ana bandi yi ñëpp noppi yàlla mu ne aynal muluk ana buur yi ñëpp noppi kenn du wax yàlla mu ne ana buur yi limanil mulkul yawma kan mooy buur ñëpp noppi ndeysaan mu ne lillahi wahidul qahar yàlla rek kon yàlla rek la mbokk yi du keneen du ñun du kenn yàlla rek la ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala dëkk bi yàlla def fi jàmm ñoo ngi ñaan waa dëkk bi yàlla sàmm leen ñoo ngi naan mag ñi yàlla sàmm leen ñoo ngi ñaan ndaw yi yàlla suba jubal leen ci lislaam ñoo ngi ñaan ndaw yu góor yi yàlla jubal leen ci lislaam ndaw yu jigéen yi yàlla def ci ñoom kersa jubal leen ci lislaam mbokk yi ñoo ngi jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu جزاكم الله خير الله يبارك